بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaam ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi nag tey ñu fas yéene li nga xamante ni tey mooy podcast bu jëm ci les lois de l'univers les lois de l'univers nag ñu koy wax sunnatullah tubaab yi jël ko daal di koy tuddee les lois d'attraction mu nekk loo xamante ni bëri na coow lool ci wàllum jullit yi ndax dañ naan ah yëfu yéefar yi yëfu bouddhiste la mais tey bu ñu xoolee quatorze lois yi dafa exister ci l'islam ndax xadis yi ñëw na di ko dëggal am na ay aay yu ñëw di ko dëggal te suñu dund gi tamit daf koy dëggal kon loolu tey mu nekk loo xamante ni doomu aadama du ci mucc ñun ñëpp nga gëm yàlla nga weddi yàlla kon buñ ñëwee ci loi yi dinañ xam ne tey soo paree ngir comprendre àddina ci doxinam da pare it ngir xam ni ngëm yàlla dafa nécessaire te dafa fondamental parce que doomu aadama bi ngëm yàlla rek mooy garantim ci kaw suuf te moo ko mën a may noof laay noppaliku may la xel bu dal ndax dangay gis ni suñu dund gi suñu demee ba nangu dogal yi nga xamante ni moom la yàlla programmer àddina bi te dogal yooyu tey dafa jiitu lépp li nga xamante ni tey mooy suñu judd suñu existence de l'être humain ndax xam nañ yàlla suñu borom ci kennam gi ci màggaayam gi ci ndogalam gi première loi de l'univers mooy loi la loi de l'unité divine la loi de l'unité divine lan lay signifier mooy yàlla ci kennam gi yàlla suñu borom nga xamante ni mooy al ahad xul wallahu ahad waxal ni yàlla kenn la allahu samad yàlla suñu borom mooy ki nga xamante ni tey ñun ñëpp moom la ñuy jaam ñun ñëpp moom la ñu yaakaar ñun ñëpp moom la ñuy wàqirlu te moom yaakaaru ci kenn te moom mooy ki nga xamante ni tey moom la ñëpp soxla te ñu te ñëpp moom la ñu soxla te moom soxlawul kenn tey bu ñu nee baatu Allah ñu ne la baatu Allah amul genre amul pluriel amul lu dul benn muy singulier muy yàlla suñu borom kon tey kenn mënula wax ni ay yàlla wala ay divinité parce que baatu jë mënul signifier yàlla non Allah non propre yàlla la kon tey ñu wax ni kon yàlla suñu borom gëm ko dafa indispensable ndax moo amal moo nekkal moo existeel lépp lu am ci univers bi lu ñu gis ak lu ñu gisul lu ñu yëg ak lu ñu yëgul kon mooy ki xam mooy ki am mooy ki mën kon mooy ki nga xamante ni mooy ki existé lépp lu existé te mooy ki nga xamante ni tey ci kàttanam ci xam-xamam ci mën-mënam ci la ku nekk di existé waaye ci la ku nekk tamit di mënee wala ci ngay xamee. kon ñu xam ne lépp li xew ci kaw suuf ci ndogalu yàlla lay xewee waaye ñu xam ne lépp li nga xamante ni mooy xew ci kaw suuf umpul yàlla suñu borom ndax ci xam-xamam lay xewee dañu xam ne loi yi benn bu nekk dafa synchronisé ak yeneen loi yi di ñëw ndax benn bu nekk mën na signifier yeneen yi di ñëw kon ñu xam ne ci kennaayu yàlla ga ci quatorze loi yi ñu commencé ci première loi ñu koy wax la loi de l'unité divine nga xam ne ci kennaayu yàlla googu ci la lépp existé ndax tey su fekkente ni yàlla suñu borom neexu ko woon dara du fi xew te fi existé kon ci ci ci volonté am la ñu existé ñu xam ni tamit àddina bi ñu dund lépp dafa connecté wu lépp énergie la ndax lépp dafay nekk loo xam ne li ñu mën a gis rek mooy li ñuy jommal waaye bu ñu xawee ni lépp énergie la te énergie mooy lan suñu roox déjà dañuy wax ni leer la dañuy wax ni ruux yàlla suñu borom joxuñu ci xam-xam bu bëri mais xam nañ ni lumière la xam nañ ni aussi am na capacité tey am yëg-yëg am na capacité connecté wu ak suñu borom ndax ngëm-ngëm kenn du ko làmb daj ko mais da koy yëg mu di la booster mu di la yóbbu ak nga ngay jëf ak di wax ak di dox lu baax kon ngëm-ngëm googu tey mooy mooy li nga xamante ni tey mooy leeral sa moo waral sa ruux bëgg-bëgg di am yëg-yëg di jëfe lépp li nga xamante ni tey mooy li yàlla bëgg ak li nga xamante ni mooy lii yàlla suñu borom euh, farataal ci ñun. kon ñu xam ne lépp lu ñuy def lépp lu ñuy wax lépp lu ñuy gëm dafay am impact dafay affecté lépp lu ñu war suñu ay jëf. suñu ay wax suñu ay mbir lépp dafay am conséquence ci suñu dund kon ñu xam ne kon hasard amul te dara loo xamante ni dañ koy def inconsciemment dafay day nekk loo xam ne dafay euh, dem comme ça yàlla suñu borom wax nañ ko alxuraan amul lu ñuy def wala lu ñuy wax wala loo xamante ni tey ñu ngi koy jëmmal te yàlla suñu borom du ci jël considération ndax ay malaaka ñu ngi bind kon lépp am importance sa yàlla soo jàppee sa dundu gi amul importance ba ngay ñàkkal fayda say jëf wala say wax wala say mbir wala say xalaat wala say gëm-gëm jàppal ni ca yàlla lu ama am importance la ndax lépp lay euh, xisaab ci bésu bi nga xamante ni mooy yow ma xisaab. tey bu ñu ñëwee ci deuxième loi bi muy la loi de la vibration loi boobu dañuy wax ni lépp li nga xamante ni mu ngi ci l'univers bi mu ngi ci jaww ji mu ngi ci àddina bi mu ngi ci alamin bi dafay bouger. lépp dafay bouger suñu yaram bii ñu gis atomes yi ko composé mais il y a plusieurs millions d'atomes yi nga xamante ni tey de cellules yu composé suñu suñu ay suñu chair te cellule yi dafay dund dafa am vie te day yëngatu même buñ ko mënul gis tey table bi nga jàkkaar lool wala chaise bi nga jàkkaar lool ay particules atomes ñoo ko composé danañuy bouger pourtant soo ko làmbee day intact soo ko tëggee dafay wuyu et tey am na ci micro am na ci micro yi nga xamante ni tey euh, buñ ko xoolee ci microscope day nekk ay atomes yu bouger ay yoo xamante ni dafay am fréquence ñu gis ni tamit tey li nga xamante ni mooy àddina bi dafay bouger ci benn fréquence ñu gis ni lépp li nga xamante ni mooy planète yi la lune le soleil le vent la pluie lépp dafay yëngatu lépp dafay bouger ci vibration am suñu wax dafa am vibration suñu xalaat dafa am vibration suñu neurones sax dafa am vibration donc suñu lépp dafa am vibration suñu nooy yi suñu lekk suñu naan donc àddina bi amul lu fi nekk ñu ne le silence n'existe pas silence amul existé wul ci àddina moo tax lépp am vibration lépp am son lépp am rythme kon ñu xam ni li am vibration li ñuy gis ak li ñu gisul ba ci wax ji ba ci xalaat yi ba ci son yi ba ci lépp loo xamante ni tey mënuñu ko làmb daj ba ci santiment yi ba ci désir yi ñu ñëw ci ñetti loi bi muy la loi de l'action la loi de l'action nekk loi bi nga xamante ni tey mooy loi wu jëf ndax gis nga jëf dañ ko war a appliquer ndax yonent bi saa salaam benn saxaab mës na ñëw ci moom ni ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw yàlla suñu borom bind na destin bi ñun ñëpp fan la ñuy mujj kon lan moo tax ñu nekk fii di sonn yonent bi saa salaam ni ko jëf leen ndax jëf mooy distinguer sincère yi ak hypocrite yi kon action mooy distinguer entre ki sincère dëgg ak nga xamante ni dafay tappale kon jëf dafa obligatoire nga xam ne say jëf tamit mu baax mu bon dafay am li nga xamante ni tey mooy effet kon li ngay jëf dafa nekk li nga xam ne mooy jëmmal aussi sa sa destin moo tax ñu war a di jëf lu baax di engagé wu ci bépp action boo xamante ni dafay soutenir li nga xam ne mooy suñu ay pensée pour concrétiser ko tey mënoo bëgg lekk nga ni doo jóg togg mënoo bëgg nekk borom alal nga ni doo def cause yi mënoo bëgg nekk wax waxkatu dëgg nga ni doo dëggu mënoo bëgg a nekk jaamukatu yàlla bu bu yàlla bëgg ba pare nga ni doo sincère doo jëf doo saraxe doo julli doo woor mënoo ne gëm naa yàlla ci sa làmmiñ rek te yow nee nga yàlla doo ko julli doo ko wooral yow tey doomu aadama bi tey nee nga yow doo julli doo woor te gëm nga yàlla loolu yow yaa ko wax pourtant doo nangu jigéen ne bëgg na la te pour pourtant du sekk ak yow calal ba wala du la toggal du la yàqal benn doomu aadama du fi nangu et am na ay doomu aadama yoo xamante ni nee nañu jullit dañu gëm nañu yàlla waaye duñu julli te ñu woor ñoom daal nee dañu wax laa ilaha illallah moo leen doy et pourtant tey bëri na jigéen boo xamante ni tey wala góor boo xamante ni tey di nga takk jigéen wala boog nga see góor et pourtant góor bi ne la ah man maa ngi lay wax bëgg naa la rek bëgg naa la kon loolu doy na nga ne ko non mais su ma bëggee danga ma war a takk mais su ma bëggee da ma war a dundal woor duma sàng ma su ma sama amee su ma amee désir nga satisfaire ko et non et pourtant am na doomu aadama yu gëm am ci gëm-gëm di ko jaamoo yàlla ñu ne ñoom du ñu julli du ñu woor du ñu def dara lu dul répété baatu laa ilaha illallah mais duñ ko concrétiser baatu laa ilaha illallah da nga koy concrétiser ak ay action waaye comme ni nga bëggee yow mii di euh, nit bi ni nga bëggee tey nit bi nga ne bëgg naa la mu concrétiser ko ay action sa sagam yow nit yaa bëgg loolu ana yàlla moom mi la bind jàngal lan mooy jëf kon nit ñi nañu sincère ak seen bopp sincère ak seen borom kon baatu action dafa nekk lu indispensable di actionner suñu ay euh, gént suñu ay rêve suñu ay désir suñu ay parole dañu war a xam ni action énergie la boo xamante ni dafa am doole te kon buñ ko jëmbalul duñu jëriñ daal kat ñëw ci loi de la correspondance loi correspondance dafay wax ni lépp loo xamante ni tey am na biir am na biti lépp loo xamante ni tey am na li nga xamante ni mën nga ko gis am na loo mënul gis te tamit ñu xam ne lépp dafa war a correspondre maanaam lépp dafa war a cohérent ndax tey suñu xoolee li nga xamante ne mooy énergie mooy mooy vibration li nga xam ne mooy mouvement dañu am principe yu correspondre ak li nga xamante ni mooy monde spirituel muy monde bi nga xam mooy le monde invisible li nga xam ne tey moo génn moo nekk ci sa biir dafay reflété wu ci sa biti ndax bëri na ku naan gëm comme ni ma doon wax sànq bëri na ku naan xool bi rek a am solo waaye xool boobu lii moo tax mu am solo moo tax tey muy génn ci say jëf ndax damay faral di wax nit ki bu ma nee ah Fatima Zahra fii ñëpp a gëm yàlla xool bi rek am solo ma ne ak ngaa wax dëgg moo tax sa xool li ci nekk moo feeñ ci sa jëmm moo feeñ ci say jëf xoolal say jëf ak sa jëmm su fekkente ni sa jëmm ji respecté na li yàlla wax ci solu jullit ci topp ci nekk julit kon gëmal ni kon yow yaa nga ca waaye bu fekkee dafa incohérent xamal ni amul correspondance ndax correspondance mooy dëggu mooy man su ma nee jigéenu jullit laa dama war a muuru dama war a sàmm samay awra dama war a def li jigéen jullit di wax dama war di jaamu yàlla comme ni mu ko bëggee mais su ma nee jigéen jullit laa maa ngi xeesal maa ngi meechu maa ngi solu gàtt maa ngi musique maa ngi wane samay awra et après ma gëm loo nit ñi jigéen jullit laa amul correspondance kon looloo tax ñu wax hypocrisie kon tant que tu n'es pas correspondant avec ce que tu dis et li ngay wax gëmoo sa bopp te yaa ngi nax sa bopp et que tu n'es ñu xam ne la loi de la correspondance mu nekk lu am solo tey ñaata yooyu ngay xëy gis nit mu nekk nit ku naqari deret nekk nit ku compliqué foo toll yaa ngi laajte kii lan moo xew parce que kooku xol bi neexul parce que gis nga xol bu naat xol bu am bànneex xol bu gëm yàlla dafay actionné ci jëf yi xoolee ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu bëri woon yërmande parce que da gis ne yonent bi xol bi moo baax xol bi moom moo rafet yàlla suñu borom moo raxas xolam moo tax mënul woon def nit lu metti mënul woon gaañ nit mënul woon méttital nit nit da ko daan poñe nit da ko daan dóor nit da ko daan saaga mais mënula delloo lu bon parce que amul lu bon yow doomu aadama bi en tant que julit nga ni yow julit nga nga ni danga war a danga nga baax nga ni da nga bëgg lu baax nga ni sa xol dafa baax dafa war a feeñ sa ay jëf danga nga war a am correspondance li nekk ci biir ci mbaax dafa war a correspondre ak li nekk ci biti parce que loolu mooy dëggal li nga xam ne mooy li ngay jëf ndax sa xol bi tey à chaque fois nga jëf sa xol say jëf dafay confirmer li nga xam ne mooy li nekk sa xol kon tey mënoo ne da ngay da nga am bonheur da nga kontaan te yow fu ñu la fekk yaa ngi la mantewu sa dund naqari na c'est stressant tey boo amee bonheur tu es souriante tu es tu es une personne bu neex a côtoyer nit ñi dañ lay bëgg da ngay attirer nit ñi tey boo nekkee nit bu baax soo nekkee nit ku nit ku ku ku am yërmande da ngay gis nit ñi dañ lay dëgmal parce que tout le temps nga nit ñi lu ma leen defal lu tax nit ñi di ma dëgmal lu tax nit ñi di ma laaj seen soxla parce que xam nañu suñ la diisee sa soxla di leen ko mën a fajal ndax dañuy sentir li nga xam ne mooy cette loi de la correspondance selon yow li nekk ci sa xol ak li nga xam moom ngay jëfee. ñu ñëw ci la loi de la cause à effet loi boobu lépp loo jëf am na conséquence tey bu fekkente ni tey yaa ngi jëmbat garab conséquence bi mooy lan jëmbat nga garab gi yaa ngi koy roose mooy dafay màgg doon doon garab day nekk pepp nga jëmbat ko di ko toppatoo mu doon garab tey ni ngay suuxate say relation di ci def lu baax relation yi day dem ba day dëgër day mel ni mbokk day jur mbëggeel tey lépp li nga xamante ni yaa koy def ci action dafay jur li nga xam ne mooy réaction ñu ne cause ne effet tey cause bu nekk dafa am effet bi muy produire tey mënoo ne tey rek bëgg naa jëf bëgg naa dugg àjjana mais du ma jëf dara damay daal di toog di xoole mënoo ne tey par exemple ah ndaw see ni ma ko nobee mais solo sa daal di jógoo dem dox ko wax ko pour mu doon sa jabar lépp li nga xamante ni yaa ngi koy jëf yaa ngi koy actionné rek dina am lu mu lay jural looloo tax ma yàlla suñu borom dafa yàgg wax ni ku jëf lu baax ma fay la lu baax am ay nit yu sañ a taxaw ne man damay def lu baax nit ñi di fay lu bon ma ne la yow yaa waxul dëgg mais yàlla dafa wax dëgg yàlla mooy ki dëggute li mu wax dëgg la mooy à chaque fois ngay def lu baax dangay am lu baax kon bu fekkente ne yow yaa ngi jëf di am lu bon mooy say jëf baaxul wala sax sa yéene baaxul ndax mën nga jëf nii en apparent mu baax nga saraxe mu baax nga mayee nii mu nekk jëf ju baax mais xol bi lan moo tax nga koy def ak kan moo tax nga koy def loolu waral nit ñi di la fay lu bon kon bu ñu demee ba xam ni kon doomu aadama lépp lu mu def ci lu baax yàlla nee na ma fay la lu baax waaye boo defee lu bon na ma fay la lu kon soo toogee naan lu tax lu bon di la dal kon revisité waatal say jëf parce que yàlla li mu wax du dañ kon bu ñuy accuser yow la ñuy accuser ne yow yaa am problème yow yaa waxul dëgg mais yàlla suñu borom li mu wax mooy li am kon su fekkente ni yow nee nga danga nga prétendre ngay jëf lu baax di am résultat bu bon tuumaalal sa bopp kon xoolal say cause yan effet lay procurer kon action réaction action conséquence te su fekkente ni tey da ngay jëmbat ay xalaat yu neex ay xalaat yu am succès ngay ngay jëf comme ko am succès ngay wax comme ko am succès ngay dox comme ko am succès di sentir ni am nga succès di di jëf ay succès sa résultat final succès rek lay doon parce que li ngay li ngay wax li ngay sentir li nga gëm dafay dëggu te conséquence bi mooy succès day concrétiser ci beneen terme ñu ne li nga récolté li nga semé moom ngay récolté wala li nga récolté moom ngay semé parce que lu tax moom la ñuy wax la loi du karma boo ko defee ñenn ci jul naan non karma n'existe pas mais nag euh, dama yaakaar ne lenn li mooy ñàkk a ngi sa diine baatu karma ba day existé wul mais li nga xam ni mooy li expliqué karma mooy boo defee lu bon am lu bon boo defee lu baax am lu baax ça ça existe bel et bien en moo tax ñu war a jëf lu baax ndax léeg yaa ngi def dara jàpp ni nit nga ko def fekk na sa bopp nga ko def ndax li ñu naan li nga rendi ci sa loxo lay nàcc te loolu mooy dëgg te amul benn kàddu boo xamante ne dafay expliquer le contraire. ñu ñëw ci six la loi de la compensation xam nga ne woon nañ leen loi yëppay duggalante yëppay expliquante muy la loi de la compensation moom la ñuy wax la loi de la cause à aussi mooy tey nit ki. xéewal ak abondance bi la yàlla may nga di ko partager ak jaamam yi yàlla nee na ma di lay yokk yàlla nee na ma di la récompenser yàlla nee na ma lay compenser yàlla nee na ma lay jox di la gën a yokkal di la gën a naatal muy muy baawaan kon li ñu am dañ ko jéem a nañ ko jéem a yaatal suñu ay jëf effet yu baax yi muy jur yàlla daf ñu koy fayaat da ngay gis ni tey sooy jëf lu baax da ngay nekk ci xolu nit ñi résultat bi nit ñi dañ lay bëgg nit ñi dañ lay yërëm léeg dina dem ba nga xam ne même boo amee noonu sax noonu yooyu say soppe ñoo la koy xeexal kon ñu xam ne doomu aadama bi lépp li nga xam mooy la loi de la compensation dafa am solo suñu liggéey ndax bien bi ñuy def dafay ñëw ci différent formes des nga def lu baax nga fàtte ko yàlla fay la ko ci beneen manière fay la ko ci neneen fay ko ci loo xaarul woon fay la ko ci loo xalaatul woon mais multiplier la ko par cent yàlla nee na boo defee benn ma fay la fukk boo defee benn ma fay la multiplier la ko te loolu Alxuraan tax yàlla suñu borom ne. sant leen ma ma dolli leen mooy la gratitude yàlla ne jëf leen lu baax ma fay leen lu baax kon soo bëggee bëri le looy gën di saraxe di gën di am waaye booy saraxe saraxeel lu baax ndax lu baax la ngay saraxe yàlla dolli lu ko gën a baax waaye booy joxe juste la nga xamante ne nga naan lii laa am loolu laay joxe lu tolloog loolu rek lañ lay fay kon nañu jéem a rafetal suñuy jëf waaye nañu yokk suñuy jëf te bu ñu ragal ñàkk tey it bu jëf lu baax bu ñu calculer lenn li nga xamante ni tey mooy nit ñi wala calculer ñeneen ñi parce que boobaa daf dañ koy perte nañu jëf uniquement te yàlla tax ak lu ci mën a xew nañu jéem a def lu ëpp loo xamante ni dafay dem ba nga xamante ni li ñuy jëf dañuy sentir ni jëf la boo xamante ni dañ ko tibbee suñu xol ci lu baax ci yéene yàlla suñu borom récompenser ñu yéene goo xamante ni tey dina kawe suñu njort. ñu ñëw ci set la loi de l'attraction loi boobu dafay wane lenn lu nekk mën nañ ko attirer mën nañu attirer objet yi mën nañu attirer événement yi tey dañuy faral damay faral dégg borom xam-xam di wax naan yàlla du la nattu mukk lu neex par exemple loo xamante ni par exemple daf la koy nattu mu neex comme ça loolu tey lan lañ ci bëgg a dégg dëgg la yàlla dina nattu nit lu neex parce que yàlla mën na la may alal alal yooyu nekk nattu nekk fitna te yow yëgoo ni yàlla mu ngi lay test nii ci alal ji mu la jox mais la majeure partie ci li ñu xam ci nattu mooy nattu lu naqari dañuy lépp li nga xam ne mooy lu ñu ragal daf ñuy nattu lépp li nga ne mooy lu ñu bëggul daf ñuy nattu lépp li nga xam ne ñu ngi naan ñu ngi dogg naan moom lii de du ma a dal lii de du ma ko mës a def lii de xaw ma ko lii de donc lépp li nga xam ne yaa ngi koy jéem a affirmer que ni du la dal wala di affirmer ko yàlla tegle ko pour wan la ni doo dara te mu doo kenn kon attirer événement yi daf ciy bokk ci li ngay wax di nga wax dara ba attirer musiba wala tey nga ragal dara ba attirer ko wala tey ngay jéem a reetaan dara yàlla teg la ko wala ngay jéem a mokke dara yàlla teg la ko wala ngay jéem a doyadal dara yàlla teg la ko lépp yàlla dafa la bëgg a jàngal àddina pour nga am sagesse léeg nga bañ dara sa xol bañ ko yàlla teg la ko pour wan la ne lii nga bañ pourtant moo gën ci yow kon lépp dafay wane ne des fois li ñuy attiré ci lu baax aussi léeg nga jéem a bëgg lu baax nga nekk koo xam ne sa xol dafa yàgg bëgg par exemple da nga gis jigéen ñu bëri ndeysaan dañu yàgg bëgg muuru mais amuñu capacité bi mais ñu ngi tiit mais ñu ngi ragal mais ñu ngi suuraale mais bëgg nañu sincère nañu yàlla suñu ba may leen courage may leen conviction may leen force à ce que ñu commencé di mukk léeg-léeg nit nekk ci problème di bëgg solution di ñaan yàlla suñu borom muy attirer ay nit di attirer circonstance ba yàlla tegal ko solution ci yoonam. léeg-léeg aussi nit ki boo may tool la loi de l' attraction dalay wan ni del xalaat lu baax del njort lu baax yàlla suñu borom nee na jaam bi lu mu njort ci man rek loolu la fay fekk tey soo njortee ci yàlla lu bon lu bon rek ngay am sa àddina. soo jot ci yàlla lu baax lu baax da ngay am ci sa àddina te borom xam ne dañuy wax naan njot ci yàlla lu baax ci yow mal xiyam boo demee bay génne àddina njottal yàlla que ni lu baax lay réserver kon loolu dañ koy wax par rapport ak li nga xamante ni tey moo concerné nit ki génn àddina waaye de la même manière aussi borom xam-xam wax ni dafay concerné aussi ci ki nga xamante ni tey mooy dund ndax tey nag ngay dundee nga sa dund gi nga jàpp ni yàlla daf lay toroxal wala yàlla bugg la wala yàlla mayu la wala yàlla ni daf lay doye dal ba pare nga bëgg yàlla di la dolli ça n'existe pas moo tax ñu ne boo santee yàlla yàlla dooli la soo santee yàlla yàlla dolli la kon loolu soo ko gëmee di nga xam ni kon da war a def lu baax da war a aussi di njortu ni yàlla am na capacité may leen li nga bëgg di nangu ni aussi yàlla am na capacité concrétiser la say yi ak say pensées di accepter aussi que ni yàlla mën na xam na am na lépp li nga xam ne yaa ngi koy bëgg wala yaa ngi koy njort kon positivité boobu ngay tenir tout le temps ci sa biir xol li jëm ci sa yàlla ci sa borom loolu mooy concrétiser wu mais tey soo gëmee lu bon di su lu bon di xalaat lu bon ñaaw jot heure boo yeewoo di gis luy confirmer sa ñaaw jot heure boo yeewoo di gis luy confirmer say raga-raga heure boo yeewoo di gis luy confirmer parce que yaa ngi dund ci ñàkk gëm yàlla yaa ngi dund ci négativité boo xamante ne tey da ngay attirer li nga xam ne mooy nekk sa xel ak tey boo nekkee nit ku négative soo seetloo bu baax ay nit ñu négative rek ngay attirer ñaata yoon ngay gis jigéen di wax ni góor ñëpp a bon góor ñëpp a yam heure bu duggee ci sëy sëy ba bon mu ne daje góor gu bon mu taas wala heure bu dajee góor mu labat ko mu nekk góor gu bon en ce moment mu toog ne man lan tax góor ñu bon rek ñoom ay dajeel ñoom laay dajeel lan moo tax man góor ñu bon ñoom laay ñoom laay sëyal parce que yaa gëm ne góor ñu bon ñoo existé kon góor ñu bon da ngay sëyal jusqu'à ce que nga xam ne góor ñu baax am na nga gëm si sa gëm-gëm ak certitude que ni góor ñu baax existé na et bu boobaa yàlla suñu borom wërsëgal la góor gu baax mais yow nag ngay gëmee ni góor ñi pa bon après nga bëgg a dajal góor gu baax miracle nga bëgg ça n'existe pas kon li ngay wax kon gëmoo ko kon sa gëm-gëm mooy concrétiser wu te lool ngay attirer ci sa dund kon événement yi nga xamante ni tey mu ngi xew ci sa dundu yow da nga ciy contribuer bu baax a baax ci sa ay gëm-gëm kon tey su fekkente ni à chaque fois yaa ngi gëm ni ñëpp mënuñu bonandoo yàlla bu bindee lu bon bind na lu baax te lu baax loolu ñaan naa yàlla mu wërsëgal ma ko te yow tamit nga jéem a baax ndax tey mënoo nekk koo xamante ni tey da ngay nekk ci lu ci lu bon nga yëg ko wala nga bañ ko yëg ndax léeg nit di nga jàpp ni da baax di nga jàpp da nga positif di jàpp ni li ngay def lu baax la te fekk na c'est diamétralement opposé fekk na sa intérieur sa ngëm yàlla sa ni nga gëmee yàlla say jëf baaxul moo waral tey nga am boobu attraction di attirer ay góor ñu bon nga jàpp da nga parfait wala da nga baax fekk na boobu sa baax dafa des parce que ni nga gëmee yàlla parce que ni ngay jaamoo yàlla parce que ni ngay jëflanteeg sa borom baaxul bu boobaa mënoo attirer nit ñoo xam ne dañu gëm yàlla wala seen jaam yàlla dafa parfait wala dañ nekk ay nit ñoo xam ne ay nit yu yu dañ ci bàkkaar la ñu te fekk na boobu yow yaa ngi ci ay bàkkaar yoo xam ne reconnaître woo ko nangu woo ko accepté woo ko parce que yow jàpp nga ne yow da nga baax ba pare ko kon il faut que yow tamit nga sincéral sa biir nga defar ko nettoyer ko mu set nga mën a attirer nit ñu mel ni yow ndax li nekk ci biir encore une fois dafay rejoindre loi de la correspondance ci biir moom mooy reflété wu ci biti nga mën a attirer li nga xamante ni tey mooy li ngay reflété. kon ñu ñëw ci huit ñu koy wax la loi de la transmutation d'énergie mu nekk loi bu puissant mooy doomu aadama bu nekk am nga ci sa biir mbaax am nga ci sa biir mbon yàlla suñu borom dafa sàq sa ruux mu nekk lu baax. mu sàqal la seytaan boo xam ne ba nga juddoo la juddu yonent bi sallam dafa ne benn xadisu Ummu Aïcha suñu Ummu Aïcha dafa mos a topp topp yonent bi sallam fekk muy dem ci armeeru Baqiya yi mu koy topp bi koy topp mu seen yonent bi gestu rek mu daw njëkkantu ñett ñett ñett daw tëdd ci laam di xëxët yonent bi bi mu yegsee jël loxoom teg ko ci dënnam rek daal di gis muy xëxët mu ne ko tey de li nga xamante ni tey mooy euh, seytaane bi moo la moo dikkal mu ne ko ah kon man dama am seytaan mu ne ko ñun ñëpp am seytaan man sama bës yàlla ma dimbali mu tuub di ma digal lu baax di ma conseil ci lu baax kon seytaane yonent bi sa salaam dafa tuub waaye ku dul yonent bi sa salaam am nga seytaane boo xam dafa lay influencer d'une manière négative nekk lu négatif ci yow nekk lu nocif plus que ngay jege yàlla plus que ngay topp yàlla seytaane ba plus que muy faible plus que du la bu faible waaye plus que ngay jege yi plus que ngay topp bàkkaar plus que ngay désobéir yàlla boobu di am doole plus que muy nekk énergie bu négatif bu am doole plus que mu lay def loo bàkkaar plus que ngay gën a am énergie bu négative kon tey topp yàlla mooy énergie bu positive et que tu seras personne positive tellement que tu es en paix avec toi-même tu en quiétude te lu baax rek ngay attiré kon ñaari énergie yooyu di xëccoo ci sa biir mu nekk énergie yi nga xam ne tey selon sa dund ni muy muy xewee rek yow di nga xam bañ énergie moo puissant ci li nga xamante ni mooy sa sa entourage. tey suñuy wax ni doomu aadama bu nekk jullit bu nekk élever ay vibration tey en tant que jullit lan moo mën a élever say vibration xanaa li nga xamante ni mooy am tawxiid bu sell xanaa li nga xamante ni tey mooy dundu alxuraan sunna alxuraan sunna topp yàlla ci ñu ko yàlla digalee jaamu yàlla ci ni ko yàlla bëggee loolu moo lay wan ni da ngay am vibration yu positive parce que xel day dal ndax li ngay dundee diine mooy ni ko yàlla bëggee ndax ñaata nit nga fiy gis ñu naan gëm nañu yàlla ñu ngi dund diine te ñu ngi ci fitna ñu ngi ci problème ñu ngi ci ndax tey nit ki nga xam ne dafa gëm yàlla kenn newul dafay tàqali ko problème de mais na muy dundee problème yi du nekk fitna du nekk musiba ndax dafay nangu problème yi day nangu dogal te da ciy am gis-gis bu baax day am opinion bu rafet ci yàlla moo tax moom problème du ko fitnaat ki nga xamante ni tey ni muy jàmmoo yàlla dafa am incohérence day am problème mu nangu day am problème mu acceptation te loolu bokk ci li nga xam ne tey dafa bokk ci pilier wu imaan yi mooy li nga xam ne accepter destin te nit ñu bëri dañu am problème mu seen destin kon nañu delluwaat jàng suñu diine xam ne moo fi njëkk te moo fi mujj ndax lu waaw luwaawu sunnatullah yi soo ko comprendre nga nettoyé li nga xamante ni tey mooy sa ngëm nga defaru laxe sa dund gi da gis ni am na avant ak après à chaque fois nga xëy dangay ngay jéem a liggéey ci sa énergie mu positive ndax liggéey sa énergie mu ngi commencé dëkk ci zikr dëkk ci tudd yàlla dëkk ci tooyal sa làmmiñ bi ci istixfaar dëkk ci di waxtaan ak yàlla dëkk ci sa xol di xalaat yàlla di seetaan li nga xam ne moo lay jëmale ci yàlla di wax ak ñi lay jëmale ci yàlla di liggéey ci lay jëmale ci yàlla sa énergie di yéeg mais tey boo xëyee nga gis ni yow macha allah jullit nga boo xam ne da nga bàyyi sa bopp xel mais nit jëwloo na la wala nit fenloo na la wala def nga loo xamante ni tey neexu la yaa ngi ci bàkkaar yi sa énergie day wàcc di wàcc di wàcc yow nga commencé gis ni journée boobu yaa ngi stressé journée boobu yaa ngi angoissé journée boobu sa xol neexul journée boobu gis nga ni carrément oh là tey sama digganteeg sama borom am na faay kon loolu lu la war a wan rek mooy dawal gaaw ca ba muy teel et nga prendre jëlaat sa vibration et nga commencé waat élever ko ci istighfar si julli si li nga xamante ni tey mooy jege sa borom. kon nañu xam ni énergie yi mun na yëg ko mun na wàcc day dépendre si yow ni ngay dundee say journée et que ni nga koy dundee tey mooy dem ba accumulé wu nga nekk mu jox la li nga xam tey mooy énergie positive. ñu ñëw ci neuf muy la loi de la gestation la loi de la gestation dafay wax ni àddina lépp yàlla suñu moom daf ko teg ci gestion bu organisée tey àddina dafa am commencement dafa am fin muy la loi du temps tey suñu jaamu yàlla yëpp yàlla daf ko teg ci temps tey dafa am koor at benn yoon ci at la jours la. boo wooree fajar timis nga dog tey li nga xam ne mooy julli dafa am waxtu dund dafa am waxtu dee dafa am waxtu sa bésu juddu da ngay judd sa bésu dee da ngay dee sa dund gi lépp looy jot da nga koy jot par temps lépp looy dund ci nattu dafa am temps bu muy duré sooy dund bàyyi naat dafa am temps bu muy duré ëmb dafa am gestation li ñu xam ci ëmb mooy li naturel mooy 9 mois bien vrai que 7 mois am na 4 mois am na wala 5 mois mais quand même li ñu xam mooy d'habitude la majeure partie nit li ëmb bu normal mooy 9 mois animaux yi aussi dañu am temps bu ñuy ëmb lépp li nga xamante ni aussi mooy tey garab boo ko jiwee am na ci garab yoo xam ne dafa am temps bu muy def pour sax tey baykat bi buy ji toolam xam nañ dafa am temps bu muy def pour sax dafa am temps bu mango di sax am temps bu orange di sax bu saxul ci temps bi du neex lan moo tax parce que am na élément yu bëri yu muy composé kon lépp ci gestation kon noonu ni yàlla di gérer asamaan si suuf si di ko gérer suñu dund yi ci xam-xamam ci kàttanam waaye yàlla jàngal ñu ñun tamit dañu war a gérer suñu dund nañu gestionner suñu dund nañu gérer suñu temps nañu gérer suñu xel bi lu suy dugg lu ciy génn nañu gérer suñu économie nañu gérer suñu njaboot nañu gérer suñu sëy nañu gérer suñu xam-xam xam lu ñuy sàkku xam-xam ak lu ñu dul sàkku xam-xam nañu gérer tout ce qui se passe dans notre vie kon la gestion la loi de la gestation daf lay wan ni lépp da nga dafa am euh, gestation bu muy suivre pour arriver à une période bi nga xamante ni tey dafay tax tey ni nga koy gérer nga gis ci bénéfice gis ci aussi ay résultats yu concret kon leen lu nekk dafa am période d'attente avant la manifestation ñaata yoon tey ngay gis nit bëgg dara nga bëgg dara jotagul ca yàlla jotagul parce que xam na ni pareegoo ngay xëccu di ci sonn loolu waral tey nit ñi dem ci sëriñ yi njabarkat yi maamën yi ñu leen di nax di leen teg dil seetal ma yàqamti nga sa wërsëg yàqamti nga takk jabar yàqamti nga am examen wala yàqamti nga tukki yow gëmoo ni mbir mi gestation la yàlla bu tuddee ni date bii par exemple yaa ngi war a tukki tey le 20 décembre wala boog le 20 janvier et que à telle heure à tel jour jour boobu du la raw tukki woo yàlla bu tuddee ni tey yaa ngi war a sëy telle date telle heure jour boobu du la raw te sëyoo kon soo gëmee yàlla suñu borom nga am foi bu macha allah bu ancré wu que ni yàlla suñu borom li muy bind bind na ko ba pare xalima ga damm na et li nga xamante ni moo war a am dafay am looy doyee sëriñ looy doyee seet. da ngay dem ci sëriñ pour mu changer la li nga xam ne moom la yàlla bind ba encre ba séché ba xaalima ba damm nga ni yow na ko seetkat ba dem wala na ko njabarkat ba évancé rectifier li nga xam ne mooy le cours de ta destin mooy yow tu n'as rien compris non seulement tu es bête nga baal ma jox ji mais njabarkat ba aussi il est bête et que loolu lay wan ni rek tey njabarkat ba même bu la defalee mu antu dafa fekk yàlla bindoon na ko ba pare yow nga dem nga am bàkkaar ci dem ca njabar nga weddi yàlla waaye aussi nga daal moom dafa xam dara wala dafa mën dara fekk na amul dara ndax lépp lu mu def mu antu mooy yàlla da koo bindoon ba pare yow nga dem actionné bàkkaar pour dolli sa bopp musiba kon suñu teelee comprendre que ni li nga xam ne mooy liy yoon li nga xam ne mooy liy dëgg mooy yàlla suñu borom lépp lu mu xewal ci àddinaam ji mooy def koo bindoon dogal ko ba mu pare nga xamante ni xaaru lu dul bés mu jot kon soo xamee ni gestation li nga xamante ni tey mooy temps bi yàlla suñu borom di dogal temps bi nga xam ni moom la soxla pour mbir am yow nga nit di temps boobu dañ ko war a accélérer wala dañ ko war a wàññi mooy vraiment tu n'as rien compris ñu xam ne say objectif say désir soo koy xalaat di ci liggéey di ci travailler ba pare di ci concentré wu mu nekk loo xam ne tey yaa ngi ciy def liñ ci war a def ngay procéder ak xel bu dal te xam ne le moment venu ce sera très facile yàlla daf lay tegal ay plan tegal la ay euh, macha allah tegal la ay situation ngay dox ba concrétiser li nga xam ne moo nekkoon say rêve te sax doo ko mais soo bëggee forcer le cours des destins da ngay gis ne affaire bi day metti day dur dinañ la ci nax wala ñu yàq sa xaalis wala ñu wala ñu nga am ci ndogal yoo xam ne mënoon nga koo éviter tout simplement parce que tu as voulu forcer le destin. ñu yow ci dix mooy la loi de la relativité loi bi dafay wax ne doomu aadama bu nekk di nga am ay nattu ay challenge yoo war a yu la yàlla di challenge nga war koo yëkkati ci sa dundu mooy tey di nga am ay défi yoo war yëkkati ci sa dund. kon ceci dit que yàlla suñu boobu la tegal ay test yoo war a surmonter tey booy dem école nga war a def bac dinañ la tegal ay test yoo xam ne balaa ngay egg ci bac test yooyu mooy waree ndax yow pare nga am pare woo ba résultat final bu jotee di nga balaa professeur ba balaa ngay egg ci euh, bac ba professeur bi xam na yow bu dee war nga am wala waroo am selon sa comportement selon ses résultat yi nga daan am selon ni nga doon jàngee dina xam ne ñii ñooy élèves yi gën a assidu ñi dañ dagg bac bi ñii ñooñu gën a ñilaar el ñëpp dagg bag bi te loolu lan moo koy waral tey mooy nit ku nekk sa comportement fi ci kaw suuf am na ci yoon yi ngay dox am na ci sa jëf ni muy mel yu sa jëm bopp boo xoolee sa da xam ne lan ngay yaakaar ci yàlla parce que tout le temps yaa ngi xam ne jéemoo dara ci sa diggante ak sa borom jéemoo dara ci sa àddina ba pare yow nga bëgg a yaakaar nekk millionnaire wala nga bëgg a yaakaar nekk milliardaire wala nga bëgg a yaakaar dund gu neex te yow jëfoo lu baax te yow defoo dara lu nga xamante ni tey challenge yi la yàlla di teg su la ko yàlla tegee au lieu nga jug wàqelu ci yàlla solutionné ko mais da ngay jooytu wala di dem xool sëriñ mu solutionné la ko wala di xool yoon yu yomb wala yoon yu gaaw nga yaakaar yàlla mën nga ko teg dil wala mën nga ko teg xel looloo lay wan ne juste muy waxal mooy les doo a gëm yàlla wala soo gëmee yàlla xam ne nag nga koy euh, toppee parce que tey comprendre tey li nga xam ne mooy la loi de la relativité xam ni yàlla à chaque fois ma jéggi benn pas ma gis ay jafe-jafe sama yoon mooy test la test boobu naa rafetal muñ ji naa rafetal ni ma xanaa ñaan yàlla xam ne moom rek mooy ci am capacité dimbali ma et que ma teg ay action pour mun ko surmonter ndax am na ci test yoo xam ne li muy laaj mooy juste patience nga muñ mu daal di jàll am na test yoo xam ne day laaj nga daal di actionné am yoo xam ne day laaj nga daal di joxe am yoo xam ne day laaj nga daal di retirer dindi effacer éliminer sànni dagg bàyyi tout ça dafay bokk ci li nga xam tey mooy la loi de la relativité nga comprendre aussi nattu bu la yàlla teg c'est relatif yàlla mën na teg dara mu neex nga gis ci ginnaaw am na lu naqari lu mu nëbb mais yàlla mën na la jox dara mu naqari te fekk ne ci ginnaaw am na lu neex lu mu nëbb te boo seetloo d'habitude say neex neex wala say bànneex a mu ngi jógee ci bi nga xamante ni da nga jógee juste ci moment yu naqari rek nga gis mm, bànneex yooyu di dugg si ndànk ndànk di ñëw kon li ngay comprendre mooy mais su ma dund woon naqari la kon du ma laal ci lu neex li kon si si dikk sa relatif kon fallait que lu naqari ñëw pour nga mën a jot ci lu neex li wala fallait que lu neex li ñëw pour nga mën a jot ci lu naqari li le temps relatif ñuy confronter suñu problème ak problème yi ñeneen ñi ndax yonent bi soo sam nee na jullit dëgg mooy ki nga xamante ne heure bu yeewoo di xool ñi nga xamante ne ñoom ñoom la tane ndax foo gisoo di nga gis ki nga tane tey li nga xamante ne mooy mbiru àddina yi xoolal ñi nga xamante ni yow yaa leen tane li nga xam ne mooy mbirum àllaaxira yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo la tane nga di leen di roy di def ay effort mais loolu tey dalay wan ni rek à chaque fois ngay jooy di yuuxu ndax danga am naqar soo gis tu gis ku la ëppale fuuf kon soo seetloo di nga xam ne li la daal lu mu metti metti mënoon na gën a pire mais piirul kon santal yàlla ci lim la daal. ñu gis ni la loi de la polarité mooy onze loi bi dafay wax ni lépp dafa am opposé te bu ñu demee sootul rahman yàlla suñu borom mu ngi wax ni moo sàkk guddi sàkk bëccëg moo sàkk góor sàkk jigéen moo sàkk li nga xamante ne mooy dund sàkk dee moo sàkk nawet sàkk noor moo lépp dafa am contraire am. lépp dafa am côté sàkk góor sàkk jigéen te dañuy gis ni ba ci ñun ba ci góor am na énergie masculine am énergie féminine jigéen am énergie féminine am énergie masculine kon lépp loo xamante ni existé na ñaar la ñaar yooyu da ngay gis ni lu nekk paire la yàlla ne na moo sàkk lépp mu nekk paire kon loolu da ngay comprendre que ni euh, àddina suñu su àddina bi nga xamante ni yàlla daf ko sàkk daf ko sàkk ci xam-xam bu mat sëkk. kon ci loolu ci la ñuy xam ne lu négatif mënul am su lu positif amul lu positif mënul am su lu négatif amul. kaw dafa am suuf am gauche am droite am ñu gis ni lépp dafay am biir am biti am lëndëm am lumière am ñu ñëw ci loi du rythme ñu gis ni euh, la loi du rythme dafay wax ni lépp dafa am ay saison ci àddina maanaam lépp dafay bouge te dañuy gis ni tey euh, comme ni ñu ko xamee ni mu amee saison des plus noonu la amee saison sèche ni mu amee sedd noonu la amee tàngaay ni muy amee xéewal léeg noonu lay amee difficulté ni muy amee wér noonu lay amee feebar ni muy amee li muy amee dund noonu lay amee dee ñu gis ni dund gi ay ay croissance la maanaam ay ay màgg-màgg la ak ay wàññeeku wàññeeku ak ay yokk yokku te loolu c'est dans tous les secteurs ñëpp koy dund même ba ci liggéeykaay dangay gis léeg-léeg nga nit ki nekk ci liggéeykaay muy métti di métti di métti ba ci yàgg mu njëkk ci gis succès ba ci yàgg succès bi màgg màgg mag màgg ñëpp xam ko mu jékki-jékki wàcc wàcc fay kenn xamatu ko mu jékki-jékki mën am liggéey bi continuer di am succès mais ama mais même bu dee daanuwul dafa fay mais amatul succès bi moom parce que am na keneen ku ñëw am succès kon àddina noonu lay euh, mel mooy lépp dafay nekk li nga xam ne dafay am rythme day yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di euh, les choses dafa am rythme ak kon loolu la ñuy wax àddina ay cycle la tey dañuy gis ni cycle yooyu tey ba ci cycle <laughs> menstruel jigéen te dañuy cycle yooyu tey dafay laal lu domaine yu bëri ci sa muy domaine bi nga xam ne aussi mooy ci li ñuy gis domaine yi nga xam ne aussi mooy cycle lépp li nga xamante ni tey mooy suñu cycle de vie da ngay xool aussi ba ci baykat yi tool yi xam nañ ni tool li nga xam ne mooy cycle euh, nature yi ak saison yi donc toutes ces choses là daf nekk ay xam-xam yoo xamante ni daf ñu jëriñ suñu àddina moo tax ñu wax ni ñi nga xamante ni ñooy sage yi dëgg borom xam-xam yi dañ daan def même seen dund su neexee lool du duñu nekk di kontaan nekk ci offre yi parce que xam nañ lu naqari li mu ngi ñëw léegi te loolu dafa nekk loo xam ne kenn mënu ci mucc suñu nekkee ci naqar aussi duñu de emporté wu parce que dañuy xam ne lu neex li mu ngi ñëw léegi kon dund gi lépp dafa rythmé dara taxawul benn place nit dund ci naqar abadan daay man nit dund ci euh, ci ci neex neex abadan daay man tôt ou tard da ngay gis ne rythme yi dund gi dafa rythmé ñu ñëw ci treize mille la loi de la croyance loi bu dafa wax gëm-gëm dafa nekk lu am solo te nit ki say gëm-gëm mooy li nga xam ne mooy forger sa ndax lépp li nga xamante ni tey fii suñu wax gëm-gëm ñu wax gëm-gëmu diine mais gëm-gëm ci yi nga xam ne rek mooy lii xew ni da nga gis fam yoo xam ne tey dañuy gëm dara dem ba def ko mu nekk dëgg gëm-gëm ci ay bidaa gëm yoo xamante ni tey du la dimbali gëm ne ah ñun de moom dañoo wex dañoo we dañoo am digg ginnaaw bu wex suñu defalee nit lu bon lu baax daf ñu defal lu bon waaw waa ñun de moom suñu famille bii moom nangam sàngam wala donc di gëm ah ñun de moom alal jiguñu wala ñun de ñun làmmiñ jiguñu wala ñun de donc tous ces choses là ay gëm-gëm la yoo xamante ni mën na contribuer say dund wala may conviction yoo xam ne c'est interne ay conviction culturelle comme Sénégal yi ñu gëm ah suñu Sénégal ah sëy dafa war a naqari sëy de moom du neex sëy de li mel li lem la ak kaani sëy doom suñu màggee teral la pour ñoom say croyance la dañu gëm ni sëy dafa war a jafe sëy dafa war a metti moo tax loo ci gis sa yi day metti parce que loolu dañ koy ancré ci yow depuis nga nekk bas âge dañuy ancré ci yow depuis nga nekk xale bu ndaw boo nekkee jigéen yow li nga gëm mooy boo màggee boo sëyi sëy foo la naqari et que gëm-gëm boobu malheureusement nekk loo xamante ni dañ koy ancré mu nekk ay croyance yoo xam ne ay mythe la ah wala boog ah, jigéen boo nekkee mbaxane sa doom bu màggee daal di xam boo nekkee ca daal sa doom su màggee nekk mbaxane donc yow daal jigéen bi fokk ñu maltraité la fokk ñu def la lu metti pour yow nga mën a jur doom yu baax mu nekk loo xam ne jigéen bu nekkee ci seen dundul metti pour moom su ko muñul ay doomam duñu baax ce sont des choses yoo xam ne dañu ko ancré mu nekk yu bëri yoo xam ne tey dañ ko war a dindi ba mu set ñu xool li ñuy gëm ndax gis nga li ngay gëm dafay contribuer sa réalité su nekkee li ngay gëm arrangé wu la ay bidaa la ay gëm-gëm la yoo xam ne du gëm-gëmu diine gëm-gëmu àddina la yoo xam ne vraiment daf lay sonal wala day yàq sa àddina nga la waaye dindi ko nga teggi ko parce que du la amal benn njëriñ ndax tout temps nit ñu bëri gëm-gëm yi ñuy gëm day nekk ay loi yoo xam ne ay maam yeeg forgé wala sa yaay wala seen famille wala loo xamante ni tey yow sa jëm bopp sa defaa ngay am say gëm-gëm bopp naan ah man de suma defee lii lii def ma ciy dal wala suma ma defee laa lii def ma ciy dal wala donc joo xam ne yow yow rek yow yaa ko créer sa bopp te loolu mën nga ko éviter sa bopp parce que mun na la dugal ci ay psychose yoo xamante ni du ko jar kon ñu xam ne lépp li nga xamante ni moo ñu dal suñu àddina la majeure partie suñu ay gëm-gëm la ñun ñoo koy attiré parce que ñun ñooy sabab ñooy jëf li nga xam ne tey moo ñuy yóbbu ci suñu ay gëm-gëm ndax tey soo gëmee ne sëy dafa war a naqari yow di nga defa def def ba naqaral sa sëy et que sa sëy kon di naqari ba yow di nga jaaxle sa sëy lu tax muy naqari te pourtant yow yaay def heure boo xëyee di def li tax muy naqari moo tax doo mën a dund ba neex ñu ñëw ci li nga xamante ni tey mooy la loi du genre la loi du genre daf ñuy jàngal lépp li nga xamante ne tey existe na dafa existe ci féminine ak masculine li nga xam ne mooy même ba ci li nga xamante ni tey mooy nature bi ci garab yi gisuñu ko waaye day am garab bu góor am garab bu jigéen li nga xam ne aussi mooy mooy li nga xam ne mooy ngelaw yi lu ñu mën a gis ak lu ñu mënta gis lépp dafay am euh, li nga xamante ni mooy euh, féminine am masculine ba ci yow jigéen da ngay am énergie masculine ak énergie féminine ndax tey jigéen énergie masculine moo lay porté à nga bëgg a liggéey nga bëgg a créer nga bëgg am li nga xam tey mooy survivre am lu nga xam daf lay dimbali sa addina ngir nga mën a nekk ci sécurité tey li nga xam tey mooy énergie euh, féminine énergie créatrice la énergie boo xamante ni dafay reproduire dafay dafay nekk li nga xam ne aussi dafay jox affection dafay joxe mbëggeel dafay joxe douceur kon ñaari énergie yooyu doomu aadama bu nekk daf ko war a canaliser ci biiram tey soo nekkee jigéen nga fexe nekk ci sa biir énergie féminine nga xam ne énergie masculine yaa ngi koy soxla uniquement pour sa liggéey pour li jëm ci wàll sa àddina ci biti mais quand tu es maison en tant que femme nga jéem a nekk féminine nga jéem a nekk jigéen en tant que góor aussi nga jéem a développer sa énergie masculine mais aussi nga développer sa énergie féminine nga xam ni en tant que góor boo nekkee sa jabar day soxla sa douceur boo nekkee sa njaboot dañuy soxla sa énergie féminine soo nekkee sa liggéey da ngay soxla nga jàmbaar nekk masculine soo nekkee ci liggéey bu mu mën a doon da ngay soxla wane sa euh, sa virilité parce que daf lay dimbali pour ce que nga mën a gérer certains problèmes moo tax yàlla jox la ko kon ñaari énergie yooyu ñu am dañ ko war a canaliser suñu biir kon 14 lois yi c'était juste ça euh, audio bi gudd na mais ñu jàngal macha allah mu nekk loo xamante ni dinañu dimbali suñu àddina kon ñu ngi leen di euh, macha allah ñu jël ko ak euh, li nga xamante ni tey mooy intelligence pour mën ci développer rek suñu ay gëm-gëm ñu ngi leen di wax salaamaaleykum wa rahmatulah